que euh, sport mën na nekk un vecteur de de boo xam ne dina dina dina tax jeunes yi mën a toog euh, fii ci réew mi bañ a def immigration clandestine def immigration mais régulière ay le sport Birame yow tam man xam naa fa ma jëm de. merci beaucoup. da nga bëgg affaire basket football affaire sport. sport laa bëgg man. waaw gën ñaari tali laa. d'abord euh, mm-hmm. il faut toujours savoir que. Mm. ci wolof nag. lépp lu nit di def il faut nga am wér gu yaram pour def ko. dañ la ne un esprit sain. dans un corps sain mm-hmm. su fekkee ni liggéey. Mm-hmm. bi ngay def dafa laaj sa xalaat dafa laaj sa esprit su fekkee wéroo ci sa mm-hmm. yaram. amoo kàttan walla amoo doole bi lay permettre nga def liggéey bi. xëy na amaana liggéey bi dina takk a hmm? donc tey ji sport dama ko jël mu gën a teeraa teeree. pour indi ko ci nu mu gën a efficient yi c'est-à-dire nu mu gën a technique yi hmm. parce que boo waxee développement boo waxee immigration rek da ngay laal lu bare bare hmm. Hmm? mais immigration balaa ngaa egg ci sport bi mu mën a nekk un levier de développement mais aussi un levier de frein à l'immigration clandestine Surtout. il faut que d'abord nga xool ci sport boobu c'est-à-dire global, global. en terme de qualificatif c'est-à-dire en terme de sport individuel sport collectif ou jeu d'esprit mais sport en général activité tey jii il faut que nga xool ko ci source bi ba pare lan lañu ñu bëgg def da nga bëgg def amateurisme wala nga bëgg def professionnalisme mhm. ça c'est d'abord la chose mhm. soo déceler ñaari yooyu c'est-à-dire boo diviser ñaari fànn yooyu ba pare mhm. si ngay xam naka nga koy utiliser parce que si ñaari côté yëpp mën na développer parce que bu fekkee amateurisme mën nga ko yemale si koñ mooy comme nawetaan c'est de l'amateurisme mm-hmm. c'est un amateur la parce que si koñ lañ koy def ay quartier ñooy daje di jongante pour benn prix pour wane quartier bi moo ëpp ay jeunes mm-hmm. mais ci kaw loolu mm-hmm. ñi nga xamante ne dañu def sport de haut niveau c'est-à-dire professionnel dañuy ñëw sélectionner foofu ay talent pour yóbbu leen si équipe professionnelle pour ñu mën a professionnaliser wu pour ñu mën a am loo xam xamante ni dinañ si mën a mm-hmm. koom boo xam dinañ si mën a suturlu mm-hmm. dimbali seen bopp waaye dimbali seen réew mm-hmm. donc tey jii man je di que je vais aller même plus loin le sport aujourd'hui on est au vingt-et-unième siècle moi je pense que et je crois que euh, le sport doit être le levier de développement mm -hmm. de tous les pays parce que sport da nga ci jàng discipline ah. aujourd'hui au Sénégal on a un problème de discipline mm-hmm. et je pense que suñu instituteurs yi suñu éduca ñi nga xam ñooy def éducation sportive yi suñu maîtres yi suñu coach yi suñu sensei yi muy sport art martial wala ci mm-hmm. sport mm-hmm. Euh, basket karaté football mën nga ci jàngal nit jikko mën nga ci yar nit parce que boo xoolee boo xoolee sport collectif mën nga ci jàngal nit bokk parce que boo xoolee su ma ko daggee bu gaaw rek basket dañ lay wax chaque fois celui qui marque c'est bien. mais mm. celui qui fait la passe décisive. c'est encore mieux. il est plus généreux. Ouais. et aujourd'hui je pense que la générosité devrait être aujourd'hui une source de cohésion sociale. parce que mm-hmm. boo généreux ça veut dire que tu passes le témoin. et on est en train de vivre une benn aire boo xamante ne c' est l'ère de passer un témoin parce que on est dans l'ère de la politique mm-hmm. yaa am na ère bu jeex mm-hmm. dafay am rupture mais mu am rupture en continuité de ce qu'il y avait d'abord mm-hmm. et pour loolu mun a am il faut le pa le passage d'un témoin dafa mel ni ngay daw 400 mètres booy daw 4 mètres tu passes le relais et aujourd'hui je pense que c'est c'est plus 4 fois 400 mètres cinq fois cinq fois euh, cinq cent mètres <laughs> parce que on va aller vers un cinquième président <laughs>